ay ca murit Touba ca kanam weer wi dee na wajalilaayi maskani Touba baat misras ngir gën a jàppandal nekkinu ko soxna yi commission féminine bu kuréel gi di daayira nuuru daayira ni Touba ca kanam door ab lël ab tàgget bu lu toll ci fanweer ci ay soxna lañu ci fas yéene jàngal mbir yu wuute bokk na ci cere defar saabu eau javel ak yeneen ci ay mbir yu ñu leen fas yéene taxawu. forme jigéen ñi ci lu jëm ci céréale local maanaam euh, lu jëm maanaam mbiru mbiru euh, dugub ceeb naka lañ ci mën a amee yeneen produit moo xam sunguf la sànqal la farine la wala farine bi ñuy jox xale yi maanaam farine nutritive boo xam ne ni bii moom la ñuy jox xale yi loolu la ñuy jàng beneen wàll gi muy noo xamee dañuy jàng nu ñuy defaree saabu eau de javel gel. ay ay bain de douche ak xeet googu donc euh, formation yi départ démarré na démb macha allah ñiñ euh, ci jot jàngal itam li ñu jàng am na lool commencé nañ ko maîtriser mais dama leen di wax ne am na itam yeneen projet yoo xam ne nas nañ ko pour indil ko Touba ca kanam parce que Mamoun ba may wax ak moom moo Modou Gadiaga sama rak dañ koo wax ne ko ñun li ñu bëgg tey Touba la ñu am lu ñu am te yóbbuwuñ ko Touba amuñu lu ñu gënal. te bu ñu sañoon tey Touba danañ ko jaawale ak Médine donc bëgg nañ loo xam ne dina ko décorer ba tax ñu waroon a am projet wu pavage maanaam pour former ñoo xam ne dañuy liggéey ci pavage mu ne ma loolu bëgg nañ ko ñu waroon a am aussi koo xam ne daf leen di former ci pisciculture maanaam yarub jën pour bëgg noo xam ne tey su yàlla dogalee loolu jën dootoo la waa Touba dootu ñu lekk benn jën bu ñu congelé waaye jën bu bees bu mel ne lu jóg génn ci géej lay am donc euh, ñooñu incha allah dinañ ñëw ak lu jëm ci maraîchage maanaam mbayum légume mais mbayum légume moomu mbay mu particulière la parce que euh, mbéy mi mbayum kaw la maanaam meññeentu yi war yi ñu daan am ci suuf yëpp ci kaw lay meññee muy tamaate beeg kaani geeg yooyu yi nga xam ne bi jigéen ñi nañ ko soxla yëpp mbay mi ngi koy def ak ba ci xaal bi lépp ci kaw lañ koy lañ koy def donc dinañu ñëw pour jàngal ko ñi nga xam ne bi tey tànn ngeen leen pour ñu suivre formation yooyu. ñu nag lii buñ ci buñ ko weesoo dinañ ñëwaat encore jox ñu encore yeneen formation yoo xam ne bii dañ koy teg ci loxo Touba ca kanam mu jox ko ay jigéenam wala mu jox ko ay jeune am. tàgget bi ci diiru fukki fan lañu ko fas yéene amal fanweeri soxna yi ñu fas yéene séddale ci ñaar ci ay saal yu fu ci nekk danañ leen fa amal ak tàgget. Touba ca kanam jaarale ko ci commission féminine bi ne du ñu yem foofu ak soxna yi ñuy tàgget bu ñu noppee danañ leen gungi ci ay financement ngir lu gën a jëmmal seen liggéey. ñaari formation nag lañ fiindi benn bi muy formation céréale locale formation la boo xamante ne dañ ciy jàngal jigéen ñi nan la ñuy def ak euh, céréales yi nga xamante ne fii lañ koy bàyyee ci dëkk bi muy mel ni ay mboq ay dugub ak yu demee noonu nan lañ koy transformé wee def ko araw def ko cere mais du cere bi ñu xam na la ñuy def ba conservation mën a yàgg ñu respecter hygiène yeeg normes yi nga xamante ni moom la ñu wax su ko defee ñu mën a jaay ci marché bu ne parce que ñëpp xam nañu marché bi du ku mu neex rek nga ñëw teg sa euh, sa bagage daal damay jaay il faut produit yi respecter normes yi nga xamante ni moom lañ joxe pour nga mën koo pour nga mën koo jaay ci loolu nag la madame Diop nekk di leen jàppale di leen wan li moom li mu jot a xam di partager ak ñoom li ñu xam ak moom li mu xam ñu boole ko jéem a defar produit bi gën danga xamante ne waa Touba fu ñu teg seen produit tey kenn bañ leen a mën a din bagg wala leneen ñu mën a tolloog ñëpp wala ñu raw leen ci jaay bi donc lépp lu ñu leen fiy jàngal lekk loo xamante ni la dañ koy utiliser chaque jour donc du produit yoo xamante ne day méttee jaay lu yomba jaay la loolu ñu jàpp ni bis bu formation bi jeexee famille dinañ mën ci appui waa si euh, Touba ca kanam ak pourquoi pas appui waa GZ continuer di liggéey gën koo yaatal ba mu dem ba nga xamante ni Touba duñ soxla cere keneen wala sanqalu keneen wala couscous keneen ñoom seen bos da leen di doy suñu jógee ci loolu noonu beneen formation bi man mi maa koy animé mu nekk benn formation boo xam te ne dañ leen di jàngal technique de saponification et de javelisation boo ko déggee mooy nan la ñuy defaree saabu ak nan la ñuy defaree eau de javel dinañ fi defar nag si ñun si suñu côté sept produits sept produits yoo xam te ni day nekk eau de javel yenn yi day nekk saabu yu wow yi yeneen yi nekk saabu yi nga xam te ne ay liquide la yenn saabu yi dañ koy utiliser pour ay raxas ñoom seen yeneen saabu dañ koy utiliser pour yaram pour sangoo ak ñoom seen saabu yi tamit même chose savon liquide bi même chose loolu la def ak ñoom instant yi nii. ndoorteeb lu tàgget bi ñoomal ko ci teewaayu soxna Bintu Mbàkke mi jiite commission féminine bu kuréel gi di daayira Nuuru daayira ni Touba ci kanam waaye tam ci jiital kilifa gi Serigne Abibou Mbàkke moom Serigne Fallou. waaye li nga xam ne moo taxaw ci ay formation bari na ndax ñoom juróom benn formation lañu waroon def ñoom juróom benn formation yu ñaar rek lañ ci tànnagul yi ñeent yi ci des wax na ko sëñ Gajaga waaye des na ay formation yoo xam ne mu ngi nekk ci diggante ONFP 3FPT ak yeneen yi nga xam ne euh, waxtaan nañu ak ñoom ba insha allahu rabbi nañu euh, door formation yooyu waaye Touba ci kanam it waxtu wu nekk ñi ngi xalaat def ay supermarché yoo xam ne lu waay liggéey ci Touba ci kanam te mu jóge ci formation yi da ko fa mën a exposé insha allah nga xam ne lu waay soxlaat yi waxuma la dëkk bi de Sénégal danga ne ma dem ca Touba ca kanam jënd ko fa bu soobee yàlla te fas nañ ko yéene tàmbali ci formation bii buñ noppee danañ ko exposé buñ ko exposé nag ah danañ ko daal di lijjanti ci saa si bis boobu bala ñoo dem dara lu fi des ci marchandise bu boobaa bu ci ëllëg saa rek mën nañoo kaa tàmbaliwaat te buñ tàmbaliwaatee formation bi wéy lay doon ndax bëgg nañ ji soxnay Touba yëpp gis seen bopp bëgg nañ soxna yi bu kuy yëngu ci Touba ci kanam gis sa bopp te bëgg nañ bu loola noppee itam ñu wéyal di liggéey ba mën di am addee ju ñuy delloosiwaat Touba ci kanam incha allah. waaye di sant jigéen ñi li tax ñëw fii mooy jigéen ñi dañoo si seen pas-pas ci Sëriñ Tuubaa kenn mën leen ci seen pas-pas ci liggéey kenn am nañ ci Tuubaa ci kanam ki ëpp nañ jëf ba tax na bu ñu wootee lu mel nii dañoo war bàyyi suñu soxla ñëpp teew euh, ñu ñëpp ñoo fa woon teew euh, jëmmal leen jàppal leen sargal leen ci fi jaajëfal leen tim euh, lii bokk na ci li xam ne bokk na ci xalaat Tuubaa ci kanam lu mu xalaatoon ngir bëgg leen ko dimbalee ndax am bi soxna si soxna bi ñu toog naa waxtaan moom di ko di ko sëñ Tuubaa lu mel ni defoon na ko ci njaarim dafa daan woo jigéen ñi xam ne weesu na rëcc na ak ndaw te àgguñ mag muy ki ay koppar jox leen ko neen dem leen ngaabu bu ngeen demee ngeen def liggéeyu doomi soxna te mooy ay sër def bandi cuub boo leen ko wecc koo ngeen jël tono la indiwaat ndey ji ndax du ma kenn nit ku tey aw nit lay ko tey jaamu yàlla te nit ku wér daal du mën a jaamu yàlla ndax ku góor ku góor ci daal doo gore te gore wu doo doo mën a jaamu yàlla moo tax kon bu Touba Ca Kanam jógee ngir lu mel nii ñu war nañu ci gàttandu jàppale leen ci bu baax a baax bi ñu xam ne jàpp leen ci nit ki ne jàpp ci mbir day xam la muy def ba noppi moo tax formation bi am solo suñu alaay ñi ngi day sant baax di la gërëm di ñaanal suñu mbokk taalibe moom suñu maamoon yàlla yokk ay leer yokk yërmande yéeneem yàlla ko yàlla àggale ndax dañuy wax ne ku sa ku sa benn bu baax ba àdduna ku ci rek am nga am nga ci am nga am nga ci teexe ba bisenc ba kon ñu ñaan yàlla yokk leer yokk yërmande yéen ñi xam ne am ngeen seen xam-xam ñëw indi ko fii euh, yàlla na yàlla na ko jëf ji ndax dëkk bi borom loolu ko so ay badi so xidma la ko sa jaamu yàlla ak liggéey euh, nit ki bu jaamu yàlla du ma yaakaar àllaaxir àjjana waaye bu liggéey itam du am bopp du am lu mu yoree boppam nit ki ngeen nga am sa indépendance moom sa bopp da am dara ku góor ci dara doo gore loolu ko waxee tàmbali rek kon lu mel nii baax na lool mm. te ñaan yàlla li ñu tàmbali yàlla ci yàlla def ndam sant nañ soxna yu baax dinañ gërëm dina ñaanal yàlla def ci liggéey bi ngeen def rek te sant waatu Touba Ca rek ci ko teew ko rek ci jàpp ngeen jàpp ak ni def ngir Sëriñ Tuubaa di xam ko te loolu ñu ñaan Sëriñ yàlla bu si daan am yoon bakkan mi nga xam ne ku yàqulu moo yàq yàlla bu ñu am yoon yàlla ñu ko tàmbali ak ci alhamdulillahi rabbil alamin liggéey bi di gën di firndeel taxawaay yëpp kuréel gii di Touba Ca Kanam ci lépp luy teel askan wi rawatina lu jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam ay ca murit Touba ca kanam weer wi dee na wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri manaba